salaamaaleykum man la Ibuloo man may borom la waññoo mi maa ngi la ñuy ñaan yéen wàllu waññoo mi seen katay ngeen jox ma ko lépp li nga xamante ne tey na nekk seen yokkute dinaa si taxaw lépp li nga xamante ne tey luy delloo la waññoo mi muy gannaaw du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg naa si na nekk li nga xamante ne loolu laay xeex kon na seen katay maa ngi la ñuy ñaan ngeen jox ma ko man defal leen li nga xamante ne loolu ngeen bëgg te loolu mooy jëm leen la waññoo kanam kon na su ma wax mën bëri loolu la amoon lu la ñuy wax waaw lu mi mooy suma la wa ñoom it te mooy suma intérêt te lépp lu may xere pour ñoom la ak di xool Gambia jërë ngeen jëf Talents TV niñ leen ko baaxoo dinañ ko defee saa su ne rek ñu nekk leen seen programme bi nga xamante ne moo di sawlu Ramadan sawlu Ramadan nag dañuy waxtaanee moo di mbiru diine li nga xamante ne moo di biir koor gi nan la ñuy gën a mën a def ba gën a ñoŋal li nga xamante ne moo di suñu jaamu yàlla tey moo ñu ñor ba tax na ñu ñëwal leen fii nga xamante ne moo di si juma Serekunda bi nga xam ne moo nekk fii si syndicat bi tey na dañu fas yéene ànd ak yaa imam bi nga xamante ne moo di julli taakusaan bi bu ñu amee ñoom li nga xamante ne moo di julli taakusaan bi ba pare nga xam ne moo ak tontu lépp rek def rek ba fonk suñu diine def li nga suñu ci biir diine ji rek ak julli bi rek ñu indi leen li fi am قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Amém. Oh. Lord করবে السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله yi comme niñ leen ko waxee sànq rek si commencement bi ñu nekkal leen seen programme bi nga xam ne moo di Ramadan tey nag dañu ñëw fi nga xamante ne moo di si juma bi nga xam ne moo nekk si seere Serekunda fii nii si biir syndicat bi ki ñu fi fekk nag mooy suñu imam Mouhamed Lamine Diop ñu fas yéene ko jox kàddu yi nag mu nuyoon teeg ñun gis nañ nag mu ngi toog ak ay naataangoom da gis nañ ki nga xamante ne tamit moo di alkaali bi mu ngi toog ci boorom bu ko defee ñu jox yaa imam mu nuyoon teeg askan gi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan Eh, ngi leen di wax ne bismillah ci seen place ci néegu yàlla bi nga xam ne moom la yàlla tànn muy néegam ci kaw suuf muy jumaa ji eh, kontaan nañ nag bismillah agsi maa la doon sax agsi nañ ci seen teewaay kontaan nañ ci seen teewaay eh, ñu ngi leen de wax bismillah ci seen néegu yàlla bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ci yem ñu ngi leen di wax ahlan waa kay yaa imaam tey nag li ñu bëgg a laajte pour askan gi jëriñoo ci comme ñu ngi ci weeru koor du weeru koor rek la dox li nga xamante lañ war a dox li nga xamante ne moo di tànku diine waaye tamit weeru koor ñu ne loo ci def rek yàlla daf la koy fullalal ba tax na lépp lu ci waay mën rek ci jaamu dañ koy gën a mën a def tey fi ñuy commencé suñu laaj ak yow mooy ne tey gis nañ jumaa ji fees na del ndax saa su nekk nii lay feesee wala ndax weeru koor bi rek a ko waral lii nag nii rek lay feesee waxtu wu nekk waxtu wi juróom yëpp da ngaa fa da ne àjjuma la waaw ndax li ko def mooy sent bi mu nekk ak ñi yaakaar jumaa ji di fi julli si moo tax mbooloo mi bari du du du julli jàmm du àjjuma du benn bu nekk dafa fees waaw loolu nag moom eh, yàlla ko ko ci wa kay iya, ya imam tay luñu ñu bëggoon rek nga waxtane ñu ko ñun ndaw ñi ak ñun li nga xamantene ne moo di jigéen ñi ñu jëriño ci mooy tay lan mooy wareefu jigéen ci diine lislaam rolu jigéen tay ci diine lislaam ya imam bëggoon nañ ñu nga waxtaanal ñu ci loolu roli diine manam jigéen ci islaam li yàlla sant góor la sant jigéen wax na ko ci ayal quran lim sant jigéen lim sant góor moom la sant jigéen ci wàllu jaamu yàlla def na ko ci fukki ataf fukki waaw arfu ataf daf ne inna almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat walxaanitina walxaanitat walsadiqina walsadiqat walsabirina walsabirat walxaashiina walxaashiat والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكر وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما فك أكبر la wax lu wax góor rek ko jigéen ba ci koor ni ko góor defee la koy jigéen defee xanaa des mu des ngant yi nga xam ne dafay laal jigéen foofu rek lañ ci uutee waaye lépp lu ñu sant góor moom lañ sant jigéen bi ñëwee ba ci charia nag dafa am luñ may góor te mayuñ ko jigéen jigéen dafa am période yi muy am jamono yoo xam ne bu bu ko xasee laal dootu mun a jaamu yàlla ci yenn jaamu yàlla yi loolu moom foofu la utee góor waaye lépp lu dul loolu lu ñu sant góor rek moom lañ sant jigéen yaayu maam tey ñu gis ne tey jigéen ñi ëpp doole ci ñoom ñi ngi bëgg a def seeni borom kër yi li nga xamante ne moo di morom comme ne ci wàllum liggéey ñu ne comme góor lu mu def rek jigéen war na ko mun a def wante tamit ci wàllu néegu sëy gis nañ ne jigéen góor foofu noonu moo ëpp doole bu baax a baax li nga xamante ne moo di jigéen foofu tam loo ñu si mën a wax yaayu maam ah góor nag ar rijaalu qawwaamuuna ala nisa jigéen ne niñ bindee góor bindeewuñ ko jigéen ba tax na buñ demee ba ci wàllu sëy dafa am foo xam ne jigéen lañ ko sant am loo xam ne wàlli góor gi lañ ko sant jigéen li ko war ci néegu sëyam mooy li ko li ko islaam sant topp jëkkëram ci bugg-buggam lu dul mooy yàlla lum ko sant na ko def fu ko emale na fa yem te itam lépp loo xam ne charia daf ko tere jigéen moytu loolu moom mooy rôle bi nga xam ne moo war jigéen ci diggante ma jëkkëram déglu digalam lu la digal lu dul mooy yàlla ànd ci ak moom loolu moom lañ ko digal dafa am nag fu fu mbiram toll bu fekkee am na liggéey bu muy def boo xam ne yàqul ci wàllu diineem dara moo waxtaan ci jëkkëram bañ d'accord kooku dara nekku ci ndax sëy moom dimbalante moo ci nekk yaay maam ba léegi rek ñu gis ne tamit ci wàllum diine bi ñu gis ne jigéen su dee julli dañ ko digtal mu muuru ñu bari ñu muru di julli ti jigen te xamuñu tay lan mo waral lolu bu ñu si mënoon léralal leeralal sallallahu Alaihi Wasallam mo wax wa këram ne bu ngeen di de len di muru jigen leppam awra la kulluha awrat kulluha awratun ma adal wati wal kaffayn karam gi rek mom lañ wax ku gen ak sa ndegu tanki way lu ko moy lu gen rek awra lañ koy tuddé motax jigen da fay wara mur ay ciiram yonent bi mom rek la ko digal kon nag ñun yonent bi la ñuy roy comme loolu la wax waa kiram bu ngeen di génn dee leen di muuru kon ab jullit buy génn war ngaa melo melokaani jullit surtout jigéen muuru ba sa yi di feeñ booy julli nga fexe ba bul sol yu gàtt na fexe ba ak si doojo ni la ko sari asanté sa fii sa rek loolu moo war jigéen yaay maam ñu gis ne ba tey tamit li nga xamante ne moo di koor gi suñu teeroo dañuy gis ñaareel ñii dañuy um tey ñële am suba ñële um suba tey lan mooy sa gis-gis si loolu nit ñi duñu umandoor weeru koor ah, yonent bi la daf ne ixtilaaful ulama rahmatun lil umma wuute julli ñi yërmande la kenn ku ci nekk la ngay dabu rek mooy mbaax weer na dañ ko xaaj am na ñoo xam ne dañ ne ku ko gis ci àdduna bi ñëw war nañu or am ñu ne déedéet jaww ja nga nekk ña bokk time ñoo war a ànd yu baree ci am kenn ku ci nag la la ca doy boo ko ci jàppee te jublu ci yàlla yàlla moom mooy àtte ëllëg waaye julli ñi ma ñu jóg ci wuute loolu yàqu ci diine dara yàqu ci dara parce que maakaa nga ne le léegoo ñu julli Égypte duñ julli wuute boobu moom du dara yaay maam ñu gis ne kàddu yi rafet na lool am na solo mu ngi toog ak nag ay naataangoom naw leen ñu gis yaa ki nga xamante ne moo di alkaali laat fii ni nga xamante ne moo di Serekunda bi moom tam ñu daal di koy jox waw moom tam Babacar Diop mu nuyoo sànni kàddu ci li nga xamante ne moo di weeru koor bi ñu ne ngëneel yi ci nekk ñu daal di ko koy cëral moom tamit mu wax ñu li ngëneeli weeru koor bismillahi rahmaani rahim eh, maa ngi leen di gërëm li ngeen ñëw fii yëg ne seen ci eh, dëkk ñun ñu ngi ci turi dëkk bi ak turi askan bi ak islam weeri koor na ci yàlla ci ponki islam yi la bokk su ñëwee e, li ñu sant ñu def ko yombalal ko jullit ci ku nekk li mu e, suñu imaam député imaam a ngi ni Mbàkke mu ngi fii xam naa moom wax ci diine e, affaire weeri koor ñu to to to yo to sëriñ yi ak ministre la ba nga nga yo mbak itam mu wax tuuti ci ci affaire yi ma dégg ci wa bu ko defee mom rek ba tay rek naataango imam la mom tamit dafa bëgga sanni kaddu ñu jox ko tamit mu wax ñu ci ngeene li nga xam ne moo di weeru koor ma wax ci wàllu rek ah. alaykum wa rahmatullahi taala wa ay wa ñu ngi kontaan ci seen ñew yi fi kontaan nañ bu baax aywa ñu ngi ñaan yàlla yàlla jëmal leen kanam yàlla bu TV bi ci kanam bi kanam bi jaahi rasulillah indallah yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla yàlla jéggal ñu suñu bakkaar lépp luñ faggu yàlla barkel ko weeru koor euh, première weer foos foos euh, fukki njëkk yi yermande yàlla la fukki ñu digg bi boobu njëggal yàlla la bi bu ñetteel bi boobu gore goreel safara la yàlla dafa laa goreel si safara eh, eh, eh, wéeru koor moom dañ loo ci liggéey rek dañ koy fulaan loolu moo tax kenn ku nekk da nga da nga war a góorgóorlu li nga doon def ci jaamu yàlla nga dolli ko li nga doon sarax nga dolli ko même su fekkee benn tàndarma ma sanga sarax ko miskin loolu tiyaabu bu rëy moo ci nekk asuma lu demee ni ki saako maaro demee ni ki saaku sukur loolu ngëneel boobu rek bu moo ci nekk waaw nañ góorgóorlu ci weeru koor bi bu baax a baax eh, yàlla mu mu moom yàlla moom moo moo moo moomal boppam ay waa weeri weer bi moom moom moom boppam boppam moom moo ko fayal boppam su suy fay nit ki tamit ni yàlla toll na koy fayee eh, asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullah maay imam Mohamed Sy ni ko alkaali waxee moom Serigne Diop Babacar mamam moo sanc dëkk bi di Serekunda xajal fi ñëpp nag waaw Serekunda mu ci ñaan di ci ñaan ba mu dem sax ba nga xam ne moo ëpp tur dëkk yi fi fekkoon yëpp kii tam eh, Seer Joob maamam la moom mooy imaam ratib bi imaam Bakke moom moo ci moo topp ah, fii nag li ngeen wax weeru koor weer bu am solo la li la doon wax tam ci jigéen ak góor kilifteef bi yàlla moo ko jox góor kon yàlla waxut fifty fifty ñiy wax fifty fifty dañoo réer yàlla wax na te islam nag moo def woman right islam dafa fekk jigéen dañ ko dee suul soo amee doom bu jigéen dañ koy suul su papaam de du am dara islam loolu la fi fekk islam daal di ne léegi doom bu jigéen bu papam gaañoo faw mu am dana jël wàllam islam moo def loolu islaam fekk na jigéen ñu koy jaay ak jënd ak def ngay donn sa jabari baay sa jabari maam islaam moo ko dindi ni ñi di am one hundred jabar one twenty islam kon islaam moo jox jigéen akam weer wi nag nii la ko imam waxe weer wu tedd la su place bi màggee time màgg jëf gi day màgg place bi su màggee mooy lu mel ne màkka soo fa jullee moo ëpp tiyaaba beneen jumaa Madina moo ëpp tiyaaba beneen juma bu dul Makka Jérusalem moo ëpp tiyaaba beneen bu dul lifit mi koor nag noonu la def ku ci nekk di caaxaan yaa ngi perte lu bari moo tax yeneen bi sallallahu alayhi dafa ne perte na koo xam ne fekke ne ay wajuram te demut ajjana perte na koo xam ne fekke na weeru koor te yàlla jéggalu ko fekke nga sa waajur góor ku sa yaay wala sa papa kontaanul ci yow ñàkk nga ajjana waxuma dinga ko jox alal by force de respect boo amut ala respect bi nga ko wara jox soko deful bam gañu gaañu yow amatuloo aljana yàlla nañ ci yalla musal ñi ngi sante sen télé bi bu baaxa baax fi nak ni nga ko waxe juróomi waxtu da fay fess tepp li nga xamne tam ño fi nek ci ay miskin ño xamne sen seen añ fii lañ ko yaakar sen reer nit dana togge sarax Banjul sax indi ko fi so waxe mu ne la luma ma fa yobbu dama de gis ñaan bi juma bi dafa barkel Seer job daf fi ñaan moo tax jumaa bi dafa barkeel ba mu si ñaane tam yemu fi ku ñëw rek du wax ne ñaanal ma de ñaanal a dëkk bi de tax Serekunda gën a barkeel dëkk yëpp di nga enu yóbbu Banjul du jar nga yóbbu Birkaama du jar nga indi ko Serekunda ñu jënd ko barke la fi yàlla def barke boobu yàlla na ko fi yàlla continuer yàlla na ko fi yàlla kon suñ kii tam suñu alkaali la moom fajar bu nekk mu ngi julleeg ñun fii su jule tam foog mu gis imaam yi ku ci am problème ci imaam itam foog mu taxaw ci miskin ya nga xam ne tam dana leen jox te kenn du ko gis moo ëpp te yàlla defa ne boo joxe di nga joxe sutura bu jullee juma ñëpp dinañ ñëw ay nigérien sax ay ghanéen dinañ ñëw si office am te doo dégg mun a jox naa diw nangam daf ko dee def si sutura ñu ñaanal ko moom itam yàlla guddal fanam eh, mos comité bi yëpp ñu nekk ci jumaa ji yëpp noddkat imaam jullikat ñëpp ñu ñaanal leen yàlla guddal seen fan imaam tam xutbaam yi nit ñi dañuy jógee ba Sukuta di ñëw di déglu xutba bi xutba yu rafet lay bind xutba yooyu yëpp mu ngi ko bind ci diine ñu ngi leen sant leen jërëm ñu ngi leen di ñaanal seen télévision bi yàlla ko yàlla yóbbu kanam rajo yàlla barkeel ko yéen ñi ciy liggéey yàlla barkeel leen jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ba léegi rek ñu nekkal leen fii nii nga xamante ne moo di Serekunda jàkkaarloog yaa imaam tey yaa imaam tey boo doon digtal ndaw ñi tey puis walu diine tay lan ngay wax ndaw ñi pour ñaax leen ndaw yi day ñoy magi elek. ñu leen di jëk ñaax nañ jang seen diine rawat na alquran parce que diine dañ koy xam ku ci am njaboot fexel mu xam tir yalla bi tax mom ngay jamo yalla fofu na xal nañ ci dess gannaaw tuuti waye dal alquran bu saxé ci dëna borom dootu def lenen lu may kon daal li ñu xeet xale yi nañ jàng seen diine léegi xam-xam tumarankewul daara yi bari na foo dem bugg ku la waxal sa diine mu waxal la ko kon nag balaa nga xir ci diine fexeel xam ko te xam gi la cay bunta bi mooy jàng kon nag li may dënk ndaw ñi daal nañu fonk jàng am xam-xam ndax ëllëg ñu mën a saytu mag ñi daal mooy suma wax yaay maam tey boo doon soxla ku la jàppale ci fi nga xam ne moo di jumaa ji comme lu mel ni ndimbal si lu mel nan lay demee jumaa ji day ndimbal liñ ci soxla mooy gi nga jumaa ji ni mel soxla nañ fi école arab soxla nañ yokkute li ci jamono jumaa ji laaj naa defar mu ànd ak jamono ndax mbooloo mi bari na jumaa joo dem tey sappe su njëkk sa du fees te bi mérito na lu nekk ku ñuy dimbale daal dimbal ci finance ak fu sa loo mën a joti lu mën a fexe ba jumaa ji ñu yëkkati loolu mooy suñu dimbal tay yaay maam loy jeexalee sa kàddu ak tey yan nga defal ñu xaas ñaanu xaas nag tey suñu télé bi Gambia talent TV ñu dégg ko fu nekk yaa imaam xanaa sant leen rek jërëm leen te itam liggéey bi ngeen nekk média si ngeen di jàllale yonent bi salaa salaam daf ne ba xutbaam gam mujj def daf ne ku ko dégg na ko jottali ku ko jotul léegi nag jottalikukaay am na surtout seen télévision yi ñu ngi leen di gën ndax ndaw lu mel ni yow téye di déglu waxi diine eh, li ñuy def pour ñaanal leen seen rajo bi yal ko yàlla yokk yokk ko ba ngeen yëg ko ci seen bopp te kenn yéen kenn ku nekk jëriñu ci ci daraja yeneen bi seen métier mi am na solo trop parce que fu làmmeñ fi seen làmmeñ joti ah bari na ndax yéenay jotel yëpp kon nag yéen yéen rôle bu rëy ngeen am yal na leen yàlla taxaw aar leen sàmm leen ba fa ngeen bugg a so ak ngeen àgg fa ci daraja yeneen bi waaw ba léegi rek yéen ñi ñuy seetaan gis nga tey dañ leen ñëwaloon fi nga xamante ne moo di si juma Serekunda bi ñu amal laaja ak tontu na ki nga xamante ne moo di imam bi di Mouhamed Lamine Diop waaye gis ngeen tey lim fi ruusal tey jóge na ci xol dem ci xol tey ku ko dégg tey di bu fekkoon ne ni nga toogee jagu tey di nga defaraat sa toogaay tey lim fi wax askan gi ñu bëri dinañ ko jëriñoo tey lim fi wax ñun ndaw ñi dégg nañ message bi nga xamante ne jox nañu ko dinañ ko jëfee incha allahu rabbi nii rek lañ leen koy deferee saa su ne rek seen programme chahlu ramadan la ñu di leen demal rek ci nit ñi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 asalaamaaleykum man la ibuloo man may borom la waññoo mi maa ngi la ñuy ñaan yéen wàllu waññoo mi seen kattay ngeen jox ma ko lépp li nga xamante ne tey na nekk seen yokkute dinaa si taxaw lépp li nga xamante ne tey luy delloo la waññoo mi muy gannaaw du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg si na nekk li nga xamante ne loolu laay xeex kon na seen kattay maa ngi la ñuy ñaan ngeen jox ma ko man defal leen li nga xamante ne loolu ngeen bëgg te loolu mooy jëmle la waññoo mi kanam kon na su ma wax du mën a bëri loolu la amoon lu la ñuy wax mooy suma la wa ñumi te mooy suma intérêt te lépp lu may xere pour ñoom la ak di xool jën a ngeen jëf